sël yàlla defar suñu mbiru adduna waaye itam yàlla defar suñu mbiru àllaaxira ci darajey sidina Muhammad nu ngi leen di nuyu nu ngi leen di ziar di leen ndokkeel bu baax a baax Haj Malick maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar waaw oustaz Bab maa ngi lay fay nuyu bu baax di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu téléspectateur u TFM yëpp yi nekk ci biir ak ci biti réew yëpp tabaarakallahu di leen ziar di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek yàlla na dëppoog ngërëmu yàlla di ñaan tamit ñoom li ñuy taataan yëpp yàlla nañ ko jëfee yàlla na lépp dëppoo ngërëm yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Haj Malick mbokki mi noonu siira ngoog waxoon naa la nag ni la siira mooy dox yun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko jëlee ci baat bi fiira sayru nga ni mooy jikkoy Seydina Muhammad yu tedd yu baax ya jikkoom yooyu nga xam ni boo ca royee daa am ngërëmal borom bi subhanahu wa taala jikkoom yooyu nga xam ne jikko yu sell la jikkoom yooyu nga xam ni moom Seydina Muhammad la mbind may jekk di rafet lépp biir baa ko gën a jekk mooy jikkoom yu baax yu rafet ya moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Haj Malik tey nag mu war a wax tuuti ci mujiza Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mujiza nag boo ko déggee mooy ay kéemtaanu Seydina Muhammad kéemtaan ya nga xam ne def na ko moom muy rasulullah ki yonent mooy def mujiza yonentu nag mooy def mujiza parce que prophète bu fi mës a jàll def na ay kéemtaan pour gaa yi topp la waaye yonentu bi alayhi salatu wasalaam yenn saay rek mu def mujiza moom sayyidina Muhammad waaye mujiza bi gën a yéeme gën a gën a dappetu ñëw ci moom muy alquranul karim bàyyi nga ni ñi dàq jàng ci àdduna bi def nañu séminaire xool alquran xam ne lii du waxi nit wax yàlla la loolu moom loolu moom xaj malik ñi dàq jàng ñi addu tubaab yeeg ñoom arab yeeg ñoom ñëpp nit ñuul ñeeg jël seen dund euh, euh, jox ko xam-xam ba mu jeex mm-hmm. ñoo dajaloo ñoom la ñu tànn ñu dajaloo def ay séminaire ay weer pare wunu def ko ay at pour xool alquran mii waxi nit la waxi wala wax yàlla la mm-hmm. indi waxi philosophe yu njëkk ya mm-hmm. waaw waxi philosophe yu njëkk ya indi waxi Socrate ya xam nga Socrate daawul bind boo ko mësaan a question la nga ko laaj ca la lay euh, da lay lay laajaat nga tontu sa bopp mu ni nit am na fu mu nekkoon daa fàtte mm-hmm. moo jàngal Platon ci xam-xamam ci Socrate la ko daan jëlee mm-hmm. Platon moo jàngal Aristote mm-hmm. euh, euh, mooy mooy mooy mooy Aristote seen la ko arab di wax tubaab di ko Aristote Aristote moo jàngal Alexandre le Grand ak yeneen di philosophe yu mag ya nga xam ni seeni xam-xam yu jékki dayoo ya ñoom ñëpp teg nañu pour xool waaye bi nu ñëwee xool alquran am nañu tuub dugg ci lislaam nag ne ay léwéen xam ngeen lu xewa ah. mhm. gaa yi lii du waxi nit waxi yàlla la waaw mhm. mhm. kon alxuraan xaaj malik mooy kéemtaan bi gën a ci li nga xam ni Seydina Muhammad def na ko ci ay mucjisa ci ay kéemtaan war a borom bi subhanahu wa taala ni ko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 آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى لكل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير sadaqallahul azim sadaqallahul azim alquran a ngoog mooy kéemtaan bi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala moo ko jox sayyidina Muhammad muy kéemtaan bu dappatu moom la yàlla wax ne yonent bi ni ko ay ayat la yoo xam ne moom alquran benn bu ci ne yu tàqali koo la waaye benn bu ci nekk defar na adduna moom alquran day benn aaya boo ci ne boo ci jël rek defar na adduna moom alquran benn aaya boo ci jël Euh, sauvetage la dina ak alaxira moom alquranul karim benn aaya boo ci jël kéemtaan la boo xam ni dafa dappetu yow Xaaji Malik mhm. kon mujisa bi gën a euh, al mujisa mujisa mujisatul xaalida bi gën a dappetu mooy alquranul karim mhm. parce que ñi dàq jàngoon makkatal mukarram vérifié nañu ko naan ko xam nga lu xew a ñun li ñu jaaxal te ëlëm nu mooy wax ji foo ko jëlee parce que ñoom gisuñu sëriñu daara boo ko jàngal gisuñu professeur bu ko jàngal kon mujisa bi ma lay gën a wax bi gën a doy waar mooy alquraanu karim am na beneen bu mu def moom rasulullahi mhm, sallallahu alayhi wa sallam toog naag saxaaba yi mhm. an osman ibnu xanifin mhm. radiallahu anhu mooy nettali mu ni anna rajulan ama xaala ya rasulallahi udcu laali an yakshifa an basari osman ibnu am ni xanifa dafa wax ni yonent bi dafa toog ak saxaaba yi benn góor gu silmaxa ñoo fekk njool màkk toog saxaaba yaa ngi toog mu ne ko yow yonentu yàlla bi na bi ne ko wuyu ko ñëpp la jox cër moo xam da ngaa ndóol moo xam da yor yori milliard moo xam njàccaar nga buy xool moo xam silmaxa nga moo xam an ak lu mën a xew ci yow xeebul kenn moom rasulullah ñëpp la jox cër silmaxa bi ñëw di jéggat di laaj bañ ñu ko mi ngi nii toog mu nuyu ko ni ko yow yonentu yàlla bi dama bëgg nga ñaan sa boroom ñaanal ma yàlla dama bëgg a gis bu ma juddoog léegi musuma gis te bëgg naa laa gis xam noo mel bëgg naa xam àdduna bi nu mu mel nit ñaa ngi may romb di wax maa ngi ami doom ami soxna xaw ma nu mel bëgg naa la gis bëgg naa xam nu àdduna bi mel na mel teg saxaaba yi xoolante fa xaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko intalix fa fa fa tawadda suma suma salli rakaatayni ne ko booyal jugal nga dem jàpp ba sell julli ñaari rakaa bu jullee ñaari rakaa ba noppi nga wax lii ma lay bëgg a wax summa xul nga ni allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika muhammadin nabiyu rahmati ya muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika an yakshifa an basari allahuma saffi'u fiya yonent bi ni ko waxal lii boo jàppee ba julli ñaar rakkaa ba noppi nga wax lii waaw yow yow sama borom maa ngi lay ñaan di jublu ci jëm jëm sama jëmm jëpp jublu ko ci yow mm-hmm. waaye ci sa yorantu bu yii bu tedd bii te mooy Seydina Muhammad yonentu bii nga xam ni mooy yonentu yërmandi yow Seydina Muhammad ginnaaw bi ma waxee ak yàlla yow lay waxal maa ngi jël sama jëmm jëme ko ci yow ànd ak yow ñu jëm ci borom bi subhanahu wa taala ngir yàlla wuññi sama bët yi muuru mu mën a gis jàkkaarloog yow jàkkaarloog àdduna bi yàlla nag ma ràmm ëllëg yow Seydina Muhammad yàlla maa ngi lay ñaan kii ma jàkkaar lool yàlla na ma ràmm ëllëg waa ji fi mu waxee loolu rek bët yi muuree ku muy gis allahu akbar silmaxa bu musul xool mhm. kon xaaj malik booba bokk na ci ay ay mucjisa sayyidina muhammad sallallahu alayhi waaye def na beneen moom bi alayhi salaatu wasalaam mhm. mooy ixyaaul dekkal na ay néew ñu deewoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dekkal leen waaye naa la wax benn rawa bayhaqiyu fi dalail anna sallallahu alayhi wa sallam daa islaami dafa woo benn góor benn ne ko woo ko ci lislaam ne tuubal ndax yàlla yërëm la woo ko ci lislaam fa xaala bika xata yuxya allahu ibnati munuma laa gëm mukk lu wax yàlla mu dekkal sama doom ji nga xam ne moom rek laa am muy jigéen ma bëgg ko sama doom bi dee bala ma laa gëm sama doom bee dekki parce que suul nañ ko ba noppi dégg nga mm-hmm. sa doom bu dee ba ñu suul ko lu yàgg kii di la woo pour nga dugg ci lislaam nga ne ko bala malaa gëm sama doom bii ma suul moom la ñu moo dekki mhm. fa qaala sallallahu alayhi wa sallam mhm. yonentu bi ni ko mhm. arini xabraha wan ma xabroom fu mu ne fu ñu ko denc bàmmeel ba nañu dem nga wan ma ko fa arahu iyahu mu wan ko ko fa qaala sallallahu alayhi wa sallam njool maaka tiim bàmmeel ba lam mu wax mooy yaa fulaanatu diw yow laay waxal de fa xaalat daal di koy daal di wax moom ndaw sax ka nekk ci biir bàmmeel ba daal di koy wuyu ne ko labbayka wa saadayka maa ngi lay nuyu wuyu naa la di woo sa ko texe yow rasulillahi fa xaala sallallahu alayhi wa sallam atuhibbiina an tarja'i mhm. ah. atuhib atuhibbiina an tarji'i waaw atuhibbiina an tarji'i ndax da bëgg dellu siwaat fii ci àdduna fa xaalat ndaw si ni ko laa mukk ci àdduna mukk lu ma fay wut àdduna doyal naa ci sëkk mukk fa xaala laa fa xaalat laa wallahi ya rasulallahi maa ngi lay giñal yow sayyidina Muhammad inni wajadtu llaha xayran lii fekk naa ci sama borom fii yiw boo xam ne min abwayya moo ma gënal ña sama ñaari ndey ak sama ndey ak sama baay fo wa wajadtul axirata xayran lii min ad-dunya ma fekk ca àllaaxira yiw boo xam ni moo ma gënal àddina ak li ci biiram buggumaa dellu si de moo tax moo tax yenn saa yi nit dee ay mbokkam di jooy di jooy ay waay ñàkk naa waay ay waay diw yërëm naa ko waay ay waay diw deewam gii ay waay diw waay ay waay diw fi mu toll ci àdduna ba noppi dee ay waay diw di dee accident bi métti na diw deewam gi métti na diw dem fekk moom fu mu tëdd moo ko dàqal fii mu bàyyi ko yàlla wax na ko yenn saa yi nit dee naan yàlla yelloonte woon naag ñee xam teraanga bi ma nekkee tey yàlla taxaw mi وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بالله أأتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون yastahzi'un sadaqallahul azim sadaqallahul azim alquran a ngoog mi ngi noonu jërëjëf laa sana dëkk bii la wàcc ci makkatal mukaram boobu Habibu Najjar la woon moom la yàlla moom moo waxoon gaa yi ni leen xam ngeen lu xewa Saadix mi ak Masduux topp leen ak Chamoun li mën a li war a xew mooy bu ngeen bëggee seen lépp dox topp leen ñii ndax man juróom-benn fukki maa ngi nii daan jaamu xërëm feebaroon feebaru ngaana ñoom ñii ñoom ma ñaanal seen borom ba ma wér topp leen leen ay prophète lañ woon. parce que waaw Sadiq ak Masduux. Mhm. yàlla indeel ñetteelu profet ba pour dëgëral leen ko. ñu jël ñu jël Habibu Najaar di ko sànni xeer di ko sànni xeer ba Habibu Najaar génne àdduna. moom Habibu Najaar moom Xaaji Maalik mhm. waaw Habibu Najaar nag bi mu deewee yàlla defal ko ay teraanga. teraanga yi ko yàlla defaloon foofu ca barzaq mu ni yàlla yaa layta xawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukrimina ay wa yàlla yollante woon nag ñeema ba ñeema ba xam teraanga gii ma nekkee tey yàlla ne ko ko xam nag waaw bàyyi rek ñu lay ñaanal ndax am na ñu fi nekk amuñu kenn ku leen ñaanal ndax barzaq xaaj malik kenn ku ci ne ay ñaan ngay dundee waaw ñaan ngay dundee mhm. waaw ñaan ngay dundee kenn ku ci ne ñaan ngay dundee sëriñ Maodo mos na ma nettali ne dafa gént gisoon Maodo Maodo ñaama mbaay meneen tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Maodo ñaama suñ sëriñ Maodo ni ko Haj Malik yéen foofu ngeen nekk ci barzaq lu ngeen di dundee ñu ne ko ñun salaatal faatixi la ñuy dundee ñu ko Haj Malik lépp lu may defoon ci salaatal faatixi xeeb naa ko loolu sama sëriñ moo ko nettali sëriñ Maodo si ñaanal ko yàlla fi yàlla bàyyi mu yàgg fi loolu tamit amiin yaa rabbal aalamiin lépp waaw lépp lu lu ñu defoon xeeb naa ko ci salaatal faatixi ndax moom la ñuy dundee bari looy julli ci na Muhammad bari looy jàng alquranul karim waaw boo amee néew di ko ñaanal ndax ñaan ya nga koy ñaanal ñu ñu loolu la ñuy dundee waaw nga yónnee ni fi xaalis rek mu dugg ci banque bi nga récupéré am na ñu toog ci buntu banque bi yalwaan mooy ñi fa nekk te amuñu ku leen ñaanal yenn saa yi nit nekk ci àdduna sa dara doxul da am bàyyi bu dee mbaay yaay ju dee doo ko ñaanal mu lay móolu rek sa lépp di tag ndax barsax àddina ak barsax dafa mel ni benn rideau rek ñoom ñu dina ñuy gis ñu may ñun ñu leen seen danañuy gis waaye ñun du ñu leen séen waaw kon xaaj Malick nit war bu amee néew war na koy ñaanal fu mu toll ko loolu kóllëre la sa baay bi la jur defal la lu ne sa yaay ji la jur sonn ci yow defal la lu ne mu dee nga fàtte ko loolu sax ngor du ngor bari na ñoo xam seeni way jur bu ñu dëddoo àdduna pare fàtte nañ ko waaw wala at ba at lañ koy ñaanal tey la anniversaire paa bi wala te la anniversaire mère bi boo xasee waas weesu jeex na doo julli mukk ba ñaanal ko parax parax julli ala asalaamaaleykum ni nga bëri dem sa yoon doo tala ñaanal sa bopp doo talal ñaanal néew yi doo tal dara dara dara dara xaj lu dul sa bopp rek yow sa bopp adduna bi dëkk mën la problème yi dëkk mën la mbambuti adduna bi dëkk mën la bàyyi woo xel yàlla bàyyi woo xel kenn nekk ci adduna bi dóor martu ah lijjanti jox ma deux millions ma yóbbu la Makka ma yóbbu la Europe jox ma deux millions cinq cent ma yóbbu la Amérique jox ma trois millions jox ma quatre cent mille ma yóbbu la Koweït hmm? jox ma cinq cent mille ma yóbbu la Arabie Saoudite boo ma joxee trois cent mille ma yóbbu la Dubaay loolu tas yaakaar yooyu. ay tas yaakaar la moom yooyu Hajj Malick ah dëgg yàlla. yooyu tas yaakaar yooyu xam nga ni Hajj Malick. Mhm. Euh, yàlla gëmul nelawul. déedéet waaw te nit ñi ku leen di ku leen tas seen yaakaar. Mhm. yàlla ci boppam mooy tas yaakaar mooy sa yaakaar. wallaahi. nga. Mhm. kon bokk na ci ay mu'jiza rasulillahi. sallallahu alayhi wa sallam. waaw yàlla yàlla yàlla yàlla waxoon na am wax na ci suurtu yaasin wax ni dama leen waxoon ni jaamu leen jaamu leen ma ngeen bañ waaw seytaan yi xëcc leen ngeen ànd ak moom mhm. ma ne leen mhm. wana wana abudu ni hadi hada siratul mustaqim siratul mustaqim mhm. ngeen lànk ah wa laqad adalla minkum jibiran kasiiran afalam takunu taqiloon di xoole hadihi eh, jahannama lu alam ahad ilaykum ya bani aadama an laa taabudu shaytaan ngeen lànk rek lakum aduwwun mubin bu ko defee ngeen të wa an i'buduni هذا صراط مستقيم gént ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون lu ngeen di xoole dugale هذه جهنم التي كنتم توعدون lu ko yàlla def اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون nu muy def ak ñun ëllëg nag اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم yéen doomu aadama yi day waxoon naa leen ni bu leen jaamu seytaane ngeen lànk ma waxoon ne seytaane seen noon la ngeen të jaamu leen ma man yàlla ngeen lank ma teg leen ci yoon wi ni coow yoon waa ngoog jaamu leen ci ngeen bañ xam ngeen lu xew lu ngeen di xoole dugg leen na ma jëxë na maa ngoog yéen ko moom laa leen déxaloon waxoon leen ne bu ngeen deful lii fi ngeen jëm mu ngi noonu dugg leen lu ngeen di xoole kon Haj Malik nit war na jaamu yàlla ba génn àdduna wallaahi alazim kon bokk na ci ay mujiza rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo yëruntu bi daan na wax loo bàyyi ma yi nabi nee na garabi màkka montagne yi màkka daan naa leen romb ñu naan ma asalaamualeykum ya rasulallahi asalaamualeykum ya habiballahi asalaamualeyka ya nabiyallahi ñoom magi euh, euh, euh, ñoom garab yi nekkoon makkatal mukaram montagne yi nekkoon makkatal mukaram waaye léegi xam naa nuyu gëj ma daan nuyu te boobu bi ko yonent yàlla daan dégg ñu koy nuyu boobu yonent bi yàlla yónnee ko boobu ndaw la buy dox mee di mbàkk xobu garab gu mu romb nga koy nuyu nan ko asalaamu aleyka ya rasulallahi mu naan lu xew kuy ya rasulallahi bu rombee montagne ñu naan ko asalaamu aleyka ya rasulallahi na bi ñii ku nuy waxal luy loolu maanaam mbaa mbaa man damay bëgg a jommi lu xew lu xew mm-hmm. Seydina Muhammad ni du ma romb magi màkk euh, euh, montagne yu màkk mukk mbaa ma romb garab ya woon màkkatal mu karam mm-hmm. yenn saa yi ma romb beeñ bi mu may sàbbaal ak nuyu man Seydina kon Xaaji Malick bokk na ci ay kéemtaanu Seydina Muhammad wax loolu mbëtt moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci ga mhm. kiwél ga ko garanti woon mhm. ga mu garanti woon day doxantu dégg benn kiwél na ko assalaamu aleyka ya rasulallah ki assalaamu aleyka ya habiballah kiwél laa la wax ne kiwél kiwél na bi gestu gisul dara dégg kàddu kiwél gi di ko woo na bi wàññeeku fekk benn sàmm yeew kéwél bi njol màkk ñëw ba ci kéwél gi wax ak moom kéwél gi ni ko dama bàyyi sama ñaari doom yi war a nàmp ma doon rëbbi pour am lu ma leen nàmpalee mhm. sàmm bi jàpp ma mhm. mu bëgg nga garanti ma balaa ñëw ma daw dem nàmpali samay doom del siwaat fii yaa rasulallah dama bëgg tekki ma ma dem nàmpal samay doom del siwaat na bi tekki kéwél ga ne ko mhm. maa ngi taxaw di la xaar sàmm bi ñëw rasulallah ni ko waa ji ne waa ji ne Seydina Mouhamed ana li ma yeewoon fii yonent bi ne ko maa ko tekki sàmm bi ne ko lu tax nga koy tekk yow Mouhamed Ibn Abdullahi yaa ngi wax yàllaa la ni bu fekkoon yàllaa la yónni lii nga def doo ko def yaa ngi may tooñ lu tax xam nga nii lu ñu yeew am na ko ko fi yeew nabi ne ko teeyal dama ko garanti rek dafa dem sàmm nampale ay doomam mu ngi dellu si sàmm bi ni ko xam nga ni du ñëw ku nu war a rey mu xam ne dañ ko jàpp prisonnier war ko rey. allahu akbar yeew ko mun lay wax ay garanti loolu dañoo mën a wax. lu ne mu wax ko rasulillah na bi ne tekk ak yar nga moo gën a yaru ñëpp wa sallam gën a dal ñëpp la ko waaj a kenn du la fekk ci mbooloo ba sa kërtal la ba gis sa jikko ju ñaaw parce que amuloo ko kenn du la fekk nga wéet ba sa kërtal la ba gis sa jikko ju ñaaw parce que amuloo ko yaa mm-hmm. baax waa ji di ko sa na bi ne tekk ak kersa ka waa ji di ko sa lu ne ñool maa kën a tekk kiwél ga ak doom yi ne ko yaay dellu mënuñoo nàmp demal Mustafa ak lay xaar kiwél gaa ngi rëppatal di daw di ñëw nan laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sax moom bi seen kéwél gi di rëppatal di ñëw di rëppatal di ñëw di sànneeku di rëppatal di ñëw ba ci tànki Seydina Muhammad mu ni guruub daal di sugg sëgg na bi jëlaat buum nga pour yeew kii yooyu sàmm bi ne ko déedéet na ko yeew yow miy wax ak lii di ko garanti muy dem di ñëwaat yow la yàlla yónni ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàyyi kéwél ga mu dem alayhi wa sallam kon bokk na ci ci ay kéem kéem taanam mhm. moom Xaaji Malick mhm. euh, wax loolu kéwél mhm. waaye mbëtt ma seede na yónni gi ko yàlla yónni wa yashhadu dabbu ma zibin risalatuhu kazab kazaybatin fi wafaqil qaanisil arimi baradallahu isa moo si Xaaji Malick radiyallahu anhu nee mbëtt ma seede na yónni gi ko yàlla yónni mu sayyidina Muhammad nit ki moom kéwél gi sax benn waay moo wékkoo mbëttam rek romb yor rasul dafa rëbbi woon rey mbëtt mi fekk njool maa kay waaraate xadiisu dabbin wa xadiisu dabbi mashhurun al alsinati la ci sunu làmmiñ mhm. loolu loolu yaakaar naa ko mos a dégg ga waxtaan ak firikat yi mhm. yàgg ngaa dégg ñu lay nettali histoire mbëtt ma mbëtt ma wa rawahul bayhaqiyu mhm. fi ahaditha kathiratil lakinnahu xadithun garibun daifun waaw xaalal miziyu laa yasixu isnaadan wala matnan wa dakarahu alqaadi iyaad fi shifaa'i waaw wax nañu nag xadis boobu xadis bu tumuranke la waaw xadis bu tumuranke la mooy histoire mbëtt mi wax nañu ni ñu ngi koy tudd ci sunu làmmiñ am nañu wax ni wir na ci wéeru waay am nañu wérul waaye xaadi iyaad moom ci sifa moom dafa ni xadis boo loo xam ne histoire la boo xam ni histoire bu wér la histoire bu wér la وقد روي من حديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاءه الأعرابي من بني سليم قد صاد ضبة جعله في كمه waaw euh, sina Omar nee na euh, loolu kon histoire bu dëggu la mhm. histoire bu dëggu la mooy arabi yu arabi boo ko déggee mooy ku dëkkee kaw mhm. rëb bi woon romb Sidina Muhammad mu ne ko su ma la gëmee day mbëtti mi la gëm te da koo rey dugal ko ci biir mbuusam nga mën a dégg wala biir saagam jaalahu fi kummihi li yezaba bihi ila rihlihi fa yaswiyahu wa yakulahu waaw booba mi ngi ci voyage ña mu àndaloon la mu ca namoon mooy dundee ko mu mbëtt ma mu rey dugal ci biir euh, ci biir mbuusa mbaa biir saagam fan la maa raa jamaata xaala man haza ba mu rombee mbooloo ma Seydina Muhammad di waxtaan ak ñoom mu ni waaw kii ku mu doon xaalu nabiyullahi ñu ne ko kii moo yonentu yàlla bi de kii moom la yàlla yónni moo yonentu bu dëggu bi fa fa fa axraja dabba ca saase rek faa goog faaw sabab yu la fa ca saase rek axraja mu génne ab dabba mbëttama min kummihi ci biir mbuusam wa wa xaala wallaati wal uzza maa ngi giñ ci le sama yàlla ju mag ji ñu tuddee laata ak yàlla juma mag ji ñu tuddee xuzza laa amantu bika an yu mina bi ka hada dabb du ma la gëm mukk lu dul ni mbëtt bii ma la gëm bu fekkee yàllaa la yónni xam nga lu xewa yow day du ma la gëm mukk lu dul sama mbëtt mii ma rey ba dugal ko ci sama biir mbuus mii pour wàcc ko pour lekk ko bala ma laa gëm mbëtt mii la gëm wa tarxahu bayna yadday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy génne mbëtt ma sànni ci gina loxo sayyidina Muhammad fa xaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam kunu salooka di rasulullah siggi xool mbëtt bi yahud yi tàccu ne tey lay am ngàcce yéefar yi tàccu ne ko sa waay li nga posé waa ji laa ilaaha illallaah am na gàcce tey de julit ñëpp jaaxle na bi siggi ne ko yaa dabb e mbëtt yàlla dee la ruwa mbëtt mi róogi mbëtt mi weccaxu weccaxu fa ajaabahu bi lisaanin mubiinin mu wuyu ko ci ci kàddu gu leer ci bu leer naññ naññ naññ yasmauhu xawma xawmu jamian mbooloo ma fa nekkoon ñëpp di dégg kàddu mbëtt ma mbëtt mi ni ko labbayka wa saadayka yaa zeyna man waafaal qiyaamata allahu akbar maa ngi lay wuyu yow mi nga xam ne texe ku texe ci sa texe gi la texe yow Seydina Muhammad sallallahu mi nga xam ni yaay taaru képp ku mës a ku am kóllëre yow mi nga xam ni yaay ramm yaay dimbali képp ko kuy taxaw ëllëg ci taxawaay ba di yowmal xiyaam mhm. xaala nabi ni man taabudu e eh, mbëtt koy jaamu xaala mbëtt mi ni ko allazi fi samai arsuhu wa fi l ardi sultaanuhu wa fi l bahri sabiluhu wa fi l jannati wa fi nnaari iqaabuhu mbëtt mi ni ko ki may jaam mooy ki nga xam ni aras ma nga ca kaw asamaanam sa mi nga ne ki may jaamu ne ko buur yi nekk ci kaw suuf du nu buur moom rek ay buur te wa taala ki jaamu mooy ki nga xam ni géej gi yoonam da cee ne te mooy borom bi subhanahu wa mhm. moom moom leen ci biir géej moom la ñoo jaamu waaw wa rahmatuhu fil jannati wa waaw yërmandeem gu kawe ga moom mooy tax nit ñi dem aljanna waaw wa ay wa fi naari iqaabuhu wa iqaabuhu fi naari mhm. mooy ñi wedd ñi ko weddi weddi la ñoo jëm mhm. safara xaala nabi ne ko xam nga lu xewa man maay kan explication yi bari na fa man ana xaala bët bi ni ko anta rasulu rabbil alamina yow yaa yórantu borom mbindeef yi wa xaatimu nabiyina yaa mottali yórantu yi rasul ne ko mbëtt mi ni ko d'accord man léegi nag wax ma lu xew mbëtt mi ni ko waxat aflaha man sadaqaka waaye waxaaba man kazabaka yow ku la weddi sooy na ku la na waaye ku la sooy na xat aflaha man sadaqaka waaye waxaaba man kazabaka waxaaba sooy na man kazabaka ku la weddi yow rasul waa ji daanu wul ndërmeelu door bopp ba ci suuf ni ko ay la yëwén de yow la yàlla yónni ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alayhi wa moo tax yàlla ni ko mhm. lii ma la defal lépp mhm. boo nekkoon di ko xat xol mhm. doo ko am lii mën a defal yaa baax yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te waxoon naa la ni la nit ñëpp daañu fàqi koo wutal si la mbooloo akuk mbooloo daañu ñëw ci sayyidina muhammad iza jaa nasrullahi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 innahu kaana tawwaaba sadaqallahul azim sadaqallahul azim alquran a ngoog Hajj Malik waaw alquran a ngoog yàlla ngay waxtaan ak sidina Muhammad buur daal di ne ko Mamadou mu ni ko naam mu ni ko isa jaa ndéem dikk na isa isa nag zaraf la zarfu li ma yastaqbilu min azamani qaafilun li shartihi mansubatun bi jawaabihi jaa fi'lu maat la mu jug maat bi naan nañ ko ci fataa bu ràggul mhm. fii ak waawu jamu jokkuwu ci wala taa u faa'il wala nuunu inaas bu si jokkee nag ñu binaal ko ci fataa bu ñu fi nattalee ni ki jaa oo jiitu ji na yàlla ne ko isa jaa ndéem dikk na nasrullahi ndimbal ak yàlla waaw isa jaa nasrullahi mhm. wal fatxu ak ubbiku borom bi subhanahu wa taala nga xam ne bi ko yàlla yónni ni ñu ko bañoon mhm. contre ko mhm. di waaj nu ñu ko rayee yàlla yónni ko ci dëkk su mu convaincre deux milliards allahu akbar ay montagne wër ko mhm. ay mbokkam bañ ko moom yonentu bi alayhi salaatu wasalaam waaye ca fitam wa ca fitam wu rëy ca comprendre nga àdduna moom Seydina Muhammad mais yàlla jox ko xel mu joxul kenn moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que dafa comprendre àdduna baax moom Seydina Muhammad yiw dafa yiw moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi dafa dal nit dafay dal waaw nit dafay nit dafa war a dal mm-hmm. mën a ñëw luñ la war a mën a wax nga dal nga dal mm-hmm. mais yonent bi dafa dal Hajj Malik mm-hmm. ay mbokkam di fexe nu ñu ko reyee mu xam ne ñu ngi koy bëgg a rey dañ koy waajal mais moom ci ki mu wakiirlu mooy borom bi subhanahu wa taala yàlla ni ko ña ngay pexe pexeelu nag maa ngi lay wax du ma la ko nëbbu wa is yamkuru bika alladina kafaru wa id yamkuru bika alladina kafaru liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuk mm-hmm. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم القرآن ngoog gis nga fii fii nag Jabal Rahman ngoog Allahu akbar xool jërëjëf la asana Xaj Malik fii Jabal Rahman ngoog dix ans après bi ko yàlla waxee lii dix ans après dix ans après la ñëw taxaw fii dix ans après parce que bii yonent bi génn na makkatal mukarram dem Madinatul Munawwara cinquante deux ans la am bi mu amee soixante deux ans moom rasulillahi la dil siwaat waaw soixante deux la dil siwaat mu Seydina Muhammad ah, ah waay waay jabal rahman ngi waaye Haj Malik mi ngi noonu mbooloo maa ngoog nii la saxaaba yi taxawee woon waay tollu tolluñu woon nii nag waaye mbooloo mi bari na bari woon na nii la saxaaba yi taxawee woon nabi yéeg ca montagne ba fii la ja arafatu kulluhu mawqifun daw dem fële neen hahuna wa hahuna waaw foo taxaw ci arafa mi ngi noonu ñi fa demagul yàlla ñu dem ah boo taxawee fii xam ne lépp dëgg la boo taxawee fii ci bis bii la yàlla wéer nu ca fenêtre am ba bég ca jaamam ña mhm. bisu arafa ngi oh dix ans après bi ko yàlla ni wa yamkurubika alladina kafaru li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yaxrujuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llahu wallahu xayru ña ngay réunion defi séminaire seen yitte dëgg mooy rey la waaye bu ñu ko mënul mooy génn dëkk bi parce que xatal nga leen moom sama Maodo waxoon ni wa yamkuruuna ixtiraaran yamkuru llahu itmaaman li zullihim mu ni wa yamkuruuna ña pexe pexelu ixtiraaran ngir waru mu ni zaaka waro googu dëgg bu moo seen aadala waaye waaye wa yamkuru delloo leen allahu yàlla it maaman ngir matal li zullihi mi ñeel seen toroxtànge parce que bu ñu xamoon ne l'islam bi dina àgg fii waaye duñ ci sonn waay déedéet waaye ci fitam ba waaye dix ans après bi mu ñëwee nag fii la yéegoon ca jabal rahma yéeg ca ko montagne ba keroog fa la ko jibril fekk indi laay laa seen indi indiwaat ko waay mi ngi nii fii la ko jibril fekk cinquante deux ans mhm. parce que bi ñu ko génnee màkk dix ans après dafa ñëw nangu màkk parce que te ba muy dem génn makk dañ ko génne mais dix ans après rasulullah yi dafa ñëw nangu màkka fii la yëkkee ko montagne bii fii la ko jibril fekk ne ko yàlla nee na li ma la santoon lépp mat na aadama def na fi junni at la ma ko santoon matul ibrahima def na fi cent quarante ans matul yunti yàlla muusee dund na cent vingt ans matul mhm. noox def na fi junni at yu manqué juróom fukk matul mhm. suleymaan nguur la ko jox gum dootul jox kenn la mu ko santoon matul mhm. waaye yow day rasulullah yi yàlla nee na la mu la santoon lépp mat na alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina billahi faman اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم fii la ko yàlla fekk Mamadou mu ni ko naam mu ni ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina 52 ans boobu mission bi dëgg xaj maa ni waxoon naa 11 ans la 11 ans bul ni 23 ans. 40 mhm. ans la ko yàlla yónni 63 ans mu génn àdduna mais mission bi 11 ans la parce que bi mu nekkee màkk 12 ans yi wala 13 ans yi waa màkkatal mukarram dafa sonn moom ba moom rasulullah yi. waaye ci 11 ans yi mu toog Médine ci la réglé àdduna bi. Mhm. ci la jël ta photo yam teg ci taabal ji rek la àdduna bi moom rasulullah yi. waaye laa sax indi ba nga indil ma ko waaye. saaxibil xawdil mawruudi. sallallahu alayhi wa sallam saaxibil maqaamal mahmuudi. sallallahu alayhi wa sallam. boo fa demee wala nga indi ma makkatal mukarram. ngi noonu. xaj ma ne boo àggee rek xam ne benn VIP doo nga am mooy sa waa ji. makka ngoog skay damay kilo arab waxoon na ko wax naa la ko bis bu ne. nee na yow makka day doy na sëkk teraanga mooy juddoo gis yi dina Muhammad juddoo fii ci yow. waaw yow màkk li ma bëgg nga xam ko rek mooy yow màkk waxuma xajjatu aswad mi ne ci yow maqaam ibrahima mi nekk ci yow safaak maro mi nekk ci yow musdalifa ngi ci yow munaa mi ngi ci yow arafa ngi ci yow waaye li ma bëgg nga xam ko mooy doy na la sëkk teraanga yow màkk mooy juddoo gi sayyidina muhammad juddoo fii ci yow law lam yakun gayra baxsil mustafa sababu li majdiha lakafaha zalika sababu wallahi kon yonentu boobu nag sallallahu alayhi wa sallam na benn beneen kéemtaan bu mu def mooy xaninu dégg nga xaaji Malick mhm. kon isa ja nasrullahi mhm. wal fathu wa raayta annaasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajan kon fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba yàlla ni ko ndéem dikk na ndimbal ak sa boroom ak borom bi subhanahu wa taala porte yi tàmbali ubbeeku porte yi tàmbali ubbeeku wa nga gis nit ñi ñuy dugg ci diine yàlla ji mu ni naam mooy ko nu ñoo ñëwee day mooy afwaajan afwaajan afwaajan mbooloo akuk mbooloo akuk mbooloo ñooy fàqi ko wutal si la yow rasulillah sallallahu alayhi wa xool tiraayam boobu nga xam ne ndam kese la mhm. àggee ba jàkkaarloog borom barrière or ba ah sama yaay Adja Abi Jaay ma ko waxoon ma moom na màkk daaw ma mhm. ma nga bànjuwul yaay Abi Jaay soppi Sidina Muhammad boobu sallallahu alayhi wa sallam man day sama waaji bi ma jàkkaarloog ma ne ko bii day ndam kese la waaw yaay Serif Tambidou mhm. yaay Ba Tambidou ñoom ñettu mhm. Mariam tabarakallah waaw ah, sama yaay Aja Abi Jaay soppi Sidina Muhammad boobu mhm. waaw ne ma ne ma bi moom dama ne ko yaa Rasulullah yow sama xarit bi si tëraay bii ndam kese la ma ne ko billaay yaay ndam la ndax ña ko bañoon booy wax ci ñoom da nga ne laanatullah yàlla na yàlla rëbbu leen ñoom Walid ibnu Mughira Xaaris ibnu Nadr Aswad ibnu Mutalib ibnu Abdul Yabus Abu Jahl Abu Lahab saay saay su bon soosu rukaanata ñu bon ñooñu waaw ñoom ñëpp seen tëraay gàcce la waaye moom day rasulullahi tëraayam nii ndam kese la mm-hmm. yàgg naa def kiimtaan fii ci màkka mm-hmm. mu yonent bi alayhi salatu wasalaam toog na ëkk gam daan wéeru bu daan xutba ñu dem ba mu yàgg ñu defar ëkk ga axraja buxaariyu an ibni omar radiallahu anhu anna rasulallahi sal allahu alayhi wa sallam kaana yaxtubu ila jizai fa lamma taqada alminbara taxawala ilayhi fa xanna aljizu fa ataahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa masaxahu fa sakana fa axrajo ahmad wabnu saadin والدرامي وابن ماجه وابو نعيم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عمر دا وخني يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكون دان خطبه توك تي اك دان ويرو تي اك مام يونت بي واي بن بيس با ني توخاله من بربا Mm-hmm. yonent bi daan ko romb ñu jékki-jékki dégg luy onk nan uh uh uh uh saxaaba jaaxle ñëw jàkkaarloo ëkk gi muy onk ndeke ëkk gi ñàkka wiiru gin Mustafa ñàkka wiirul ti ci moom moom lay onk sallallahu alayhi wa sallam nee na rasulaa yi ñëw ba ci ëkk ga jël loxo bi teddee daal koy masaa ëkk ga daal di koy masaa ëkk ga nee na ñu jël ëkk ga gas daal di koy suul comme ni ñuy dencee doomu adama mu ne ko sama kóllëre ak yow ëllëg la aljana allahu akbar kon xaaji Malik kon kooku <clears throat> ay mujizaam wal mujizaatu mhm. taadaaduhu abathun mi'shaaru i'shaari lam yudrak wa lam yufham jiimul uluufi li haadil xalqi mujizatan waaye mhm. amal quraanu amal quraanu yàllu fiihi abdulami abdulami mi ngi noonu sunu waa jàngoog mi ngi noonu sunu gàllankoor ak alaxira ngoog mi ngi noonu soppay sidina Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal yàlla bu leen kenn ëppale ci rasulullah yi ubbi nañu ligne bi laasana nga ubbi ko bu ko defee soppe Seydina Mouhamed yi nga xam ne dañu safoo télévision Futurs Médias waaye bëgg lool émission bi di siira am na ñoo xam ne ña ngay waaye ña nelaw mhm. ndax gëmmintu am na ñoo xam ne waaye duñu duñu tëdd mhm. il faut siira jeex waaw Hadj mhm. kon waa ji kéemtaan yi loolu loolu mi ngi fi tabarakallah oustaz Pape alhamdulilahi rabbil alamin oustaz dafa ne dafa mel ne yonent bi sallallahu wa sallam comme ni la a xoolal lim fi lim ci ay kéemtaan yi ko yàlla jox comme ni nga ko waxee léegi kéemtaan bi ci gën a fës gën ci leer muy alquranul karim hmm. yàlla wax seek moom lu nekk taraasa ci àdduna comme ni nga ko waxee nettali ci tey nettali ci démb nettali ci suba te yéeféer di ko jàng ñi gëmul yàlla gëmuñu yonente bee ngi jàng loolu hmm. wallahi wax nga sànq ne yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla nee na ko moytu leen seytaane ndax baaxul seytaane baaxul da leen di yàqal mhm. pape yëg nga ne xutba bi mu a def yàlla daf ñu ko nettali ci alquran allahu akbar xutba bi mhm. xutba bi la jël rek nettali ñoo ko seytaane discours bi lay def ak ñi nga xamante ne bi na weñ na seen loxo yóbbu leen safara yàlla musul ci moom wallahi alazim ah naan leen naan leen waadakum waada alxaq wa fa axlaftukum mhm. yàlla ma dig leen ngeen weddi yàlla topp ma kaay leen ànd ak ñoom dem safara fa axlaftukum wa maa kaana li aleykum min sultaan bu leen ma yedd nag illaa an daawtukum man daal dama leen woo rek fastajabtum lii ngeen wuyu si ma falaa taluumuu nii wa luumuu anfusakum bu ma yedd yedd leen seen bopp yedd leen seen bopp waaw man li ma war a jaamu yàlla yëpp jaamu naa ko benn rek la def yàlla te erreur la mooy sujjutal adama ma bañ sujjutal adama malank malank loolu kese laa def waaye yéen foo taxaw jaar ma la taxaw na fa jaamu yàlla jaamoon fa yàlla kon falaa taluumuu bu leen ma yedd mukk lumu anfusakum yedd leen seen bopp waaw maa ana bi musrixikum wa maa antum bi musrixi yi man daal lu ma fi nekk di leen yuuxoo wala ngeen may yuuxoo te li tax yàlla dañu ko nettali pour mu daw seytaane pour ñu moytu ko la waxoon nañu ko ca suratul fatiri inna shaytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa innama yad'u xisbahu liyakunu min ashaabi sair seytaane seen noonu la waaw moytu leen noonu booba jàpp leen ko noonu te moytu ko bu ko defee alquran nekk mujiza bu doy waar boo xamante ne bi ne yàlla wax na ci lépp wax nga ko léegi keroog bi mu taxawee fii si jabalu rahma lu mu wax al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa atmamtu alaykum ni'mati waa li mat li nga xamante ne bii ne comme ni koy faral di waxee Adama ñëw na matul Moussa ñëw matul Isa ñëw matul ñëpp ñëw matul 312 ñëw matul moom mu ñëw mu mat luñ bëggati topp ko waaye nit a ingrat li alquran di wax naan inna al insana li rabbihi lakanuud mhm. waaw nit nit nit fayul naar bi xoromam nit fayul naar bi xorom déedéet ak li ñu yàlla defal wallahi alazim def ñu ñuy nit def ñu ñuy nit neexoon ku mu def ñu ñuy bàyyi ma waaw bi gën a neex nag mooy bi ñu yàlla boole ñu bokk ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakallahu waaw kon bu ko defee mu'jizaat yooyu nit ñi dañ ko war a bàyyi xel xam ne yàlla waxul ak kenn ku dul yonent bi mm. xam nga ne kuy romb ay garab ñu lay nuyu di romb ay xeer ñu lay nuyu xiif xeer yi ñëw taxaw dajaloo sa kanam naan la waxal léegi ñu soppali ko nekk ay montagne or ki wurus nga jëfandikoo ñu ñu dellu suñuy place mu dëddu leen mu dëddu leen oho barakallah ñu jël kii salaamaaleykum bismillah aleykum salaam aleykum salaam wa rahmatullah allo alhamdulilah alhamdulilah kooku Moustapha Moustapha naan Moustapha Mbaye Moustapha Mbaye Moustapha Mbaye waaw ah Siré Sonatel bisimilah bisimilah Moussa Ba. bisimilah. waaw man de émission bi moom dama koy déglu wax dëgg yàlla bu baax chaque fois dama koy déglu. jërëjëf jërëjëf Mbaye. oui am ci contentement bu baax nag. jërëjëf. dëgg yàlla ndax damay toog di ko déglu wallahi mais dama ci yëg sama bopp bu baax a baax daal. waaw ndax di wax ci yonente daal wax dëgg yàlla man daf may delloo daal lu bari ci yàlla. man daal xaw ma la wax dëgg yàlla daal ku sopp yonent bi laa ku bëgg laa mais daal may ñaan daal ngeen ngeen di may ñaanal foo rek yàlla di ñu delloo rek ñu soppeeku bu baax a baax incha allah gën a jublu si bi te xam ni dëgg rek ay dëgg. jërëjëf waaw foo leen toll ngeen jàppale ñu ci ñaan rek incha allahu taala parce que daal wax dëgg yàlla bëgg nañ ko nit ki moom li nga xamante ni boo deewee ci nga jëm moom bu yóbboo nga njëkkee ko balaa ngay dee. Mm-hmm, mm-hmm. waaye daal wax dëgg yàlla sama xel nag wallahi da ciy nekk damay bëgg lu soppeeku jublu yonent bi boo boo ci bëggee dem ak day mel daal leen lu lay delloo gannaaw daal xaw ma nu mu demee noonu. Mm-hmm. yéen yàlla yàlla barkeel yàlla musul. waaw dama koy déglu wallahi sànq rek bi ngay wax ci gëléem bi rek dama koy déglu ak néew yi génn àdduna ñeneen ba soxlay ñaan rek mais dama koy déglu ba sama yaram bi day daw wallahi laaj bi. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. jërëjëf yéen daal foo leen toll ngeen di jàppale ba ñoo fàtte si ñaan rek incha allahu taala. incha allah daal bu baax a baax incha allahu taala wallaay kontaan nañ trop si émission bi daal yal na yàlla yokku xéwal yeeg yëpp. amiin yaa rabbal alamin yàlla yàggal e seen taxawaay. amiin yàlla fay leen bu baax incha allah. amiin bi nag bu am incha allah daal dina ma baax trop. ah. waaw. allo Moussa Wa. waaw ma ni numéro bi fekkoon dinaa ko mën a am sa numéro. waaw bi ah, waa jëlal jëlal. waaw 567 41 82. 77. 567 41 82. 547. 567 67. 67. waaw. 41 82. 41 82. mu ngoog. ok jërëjëf waay. jërëjëf Moustapha yal na leen yàlla fay. amiin amiin jërëjëf. kon Hadj Malick. Mhm. wax naa la ëkk ëkk gi. Mhm. waaye an ah, Abbas nag. ibn Abbas radiyallahu anhu. Abbas dafa nettali wax ni. Mhm. anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaxtubu ila jiz'in. qabla an yattaxidal minbara fa lama taxadal min bara fa taxawala ilayhi xannal jizu fa ataahu faxtadanahu fa sakana fa qaala sallallahu alayhi wa sallam law lam ahtadinhu la xanna ila yawmi alqiyamati wallahi abbas abbas dafa abd ibnu abbas dafa wax ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daraan xutba ci ëkk ga ëkk ga di onk nee na su ma ñëwuloon bokk ko day onk ba yowmal xiyaam. salaamaaleykum allo allo allo. bisimilah. allo. allo salaamaaleykum. salaam wa waaw sëriñ bi na ngeen def. Oustaz Pape Hann. ñu ngi leen di nuyu. ñoo ngi ziar waay. ñu ngi leen di delloo ziar. ana na ngeen def ana waa kër gi. alhamdulilah alhamdulilah tur bi ma ñëw si jàmm man la Sadio Ka. ah. Sadio Ka Kër Massar. Sadio Ka. waaw. ah yow de sama nijaay nga sama yaay Fatou Ka la tudd. alhamdulilah na ngeen defee caan dañuy rafet li émission bi rek Sadio jërëjëf jërëjëf ka waaw émission bi neex na macha jërëjëf jërëjëf ka fi yàggal leen fi amin amin ka amin yal na yàlla leen bu baax a amin amin ka amin ka amin maa bu neex alaaji Malick Jeng la jërëjëf Malick Jeng la ah, mi ngi noonu yal na yàlla yokk la dëgëral amiin yaa rabbal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am mbégte lool ci mboolem soppay Sidina Muhammad yi nga xam ni ñu ngi ànd ak ñun safoo télévision Futurs Médias mhm. ñoom itam yal na yàlla yokk leen dëgër mais xaj ma dama lay waxaat beneen mucjise ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sujudul bairi lahu sallallahu alayhi wa sallam daa toog ak saxaaba yi mhm. ñaari gileem romb njol màkk sujud Euh, euh, gileem yi sujjootal rasulullah sujjoot gileem yi dañu ñëw ba ci sayyidina Muhammad sujjootal sayyidina Muhammad continue seen yoon. salaamaaleykum. aleykum asalaam wa rahmatullah. soxna si ñu ngi lay nuyu. aleykum. bismillah bismillah. alaaji ñu ngi lay alaaji Pape Hann kontaan nañu. jërëjëf yaay waa waa wàññi wàññi télé bi waaw derkale Khady Ndiaye si sa derkale. jërëjëf waa wàññi télé bi wàññi télé bi yaay. ñu ngi lay kontaan ñu ngi. ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf yaa wàññil télé bi télé bi ñu ngi xool màkkatal mukarram fi mu ne suñu yaram dee na. yaay wàññil télé bi wàññil télé bi yàlla guddal fan wi indi. amiin amiin amiin. na yàlla yokk sutura bi. amiin amiin amiin amiin. fan bu gudd ak wér. amiin amiin daraja yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. suñu yaram dee na. tabaarkàlla aan yal na yàlla guddal sa fan amiin amiin ah, yaa fajar ba léegi ñu ngi lay déglu di la seet di seet màkk di seen jabalut rahma ak foofu yëpp tabaarkàlla jërëjëf yaay yal na yàlla yokk sutura bi amiin amiin jërëjëf aan kontaan nañu kontaan nañu yaay nuyu waa Derklé yëpp yal na yàlla guddal fan wi jërëjëf yaay jërëjëf aan jërëjëf kontaan nañu jërëjëf dégg nga Haj Malik waaw sujudul bairi lahu sallallahu alayhi wa sallam an aishata radiallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana fi nafarin min almuhajirina wal ansaari fa jaa bairun fa sajada lahu fa qaala asxaabuhu ya rasul allahi tasjudu laka albahaimu walshajaru fa nahnu axaqu an tasjuda laka fa qaala abudu rabbukum wa akrimu axaakum walaw kuntu amaru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha walaw amaraha an tunxala min jabalin asfara ila jabalin aswada ila jabalin abyada kaana yanbagi laha an tafaluhu saaxibi alxawdi almawruud waa ji kenn du moom saxaaba yi ni ko mhm. ginnaaw bi giléem yi si jotee mbo ci fekk mi nekk ak mbooloo di dem mhm. ànd ak muhajirin waa muhajirin yi mhm. ak waa lansaar muhajir boo ko déggee mooy ñu génne woon makka ñu ngi Medine waa lansaar mooy ñi dimbali woon Seydina Muhammad dëkkee mi ca madinatul munawwara waaw giléem gi jóg ba ci Seydina Muhammad si jootal ko saxaaba yi ni ko yow Seydina Muhammad bàyyi ma yaa ngi lay si jootal garab yi di la si te ñun ñoo leen gën ay nit lañu bàyyil ñu lay si jootal rasulaay ne hey jaamu ji leen yàlla laa wax te ngeen teral seen mbokk su ma doon diggal nit muy sujootal moroomu nitam kon soxna laay digal mu sujootal borom këram hmm. foofu nag na bi nga fay mhm. ni borom kër fooree attention rasulaay su ma doon digal nit muy sujootal moroomu nitam kon soxna laay digal mu sujootal borom moroomu nitam ah, waaw man dama leen jaamu yàlla man kenn du ma sujjuutal ma rasulullahi sallallahu alayhi am na keneen ku ñëwoon su sujjuutal ko li xam nga ko mu doon hmm. benn gàtt la sujjuutul ghanami lahu sallallahu alayhi wa sallam an ah, am na ku ne mi noonu soppay Sidina Muhammad yaa ngoog ñaanal leen ñoom itam yal leen dëgëral salaamaaleykum waaleykum Mbap man la Mouhamed. Mouhamed nan mbokk mi noonu Mouhamed nu ngi koy ñaanal moom itam yal na yàlla yokk ko dëgëral ñaanal mboolem soppi si jina Mouhamed yi nga xam ni ñu ngi safoo télévision Futurs Médias nuyu leen waaye itam ziyaar leen. an si ah, an Anas ibnu Malikin radiyallahu anhum mhm. anhuma xaal mhm. daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mhm. xaaitan li ansaari wa maahu abubakrin wa umaru wa rajul min ansaari wa fi lxaaiti ganamun fa sajadat lahu fa qaala abu bakrin ya rasul allahi nahnu ahaqu bilsujudi laka min alganami fa qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam laa yanbagi li ahadin an yasjuda li ahadin waaw salaamualeykum waaleykum salaam tullah bismillah sëriñ bi nu ngi lay nuyu alors salaamualeykum bismillah sëriñ bi nu ngi lay nuyu waaw waaleykum salaam tullah yaa ngi ci télé bi wàññil télé bi wàññil télé bi waaw waaw waññi naa sel bu baax kay. jërëjëf jërëjëf allo jërëjëf. alhamdulilah jërëjëf waay. jërëjëf tur bi naka la. jërëjëf alhamdulilah. Mamadou Dieng. Mamadou Dieng. Ah, waa kay bismillah. waaw am na benn waay bu ma laajoon def bëgg a téere ne la. ah. am na benn waay chrétien dama laajoon téere téere Quran. mu doo wax ci kaw doo wax ci kaw man benn waay moom laa jëm téere alquran chrétien la nag. waaw. mun def koy neex xamu nag mu mun naa ko bindal ou bien lan la loolu laa bëggoon laaj. daf la laaj téere alquran. waaw. waaw te catholique la. nee na téere bi da koo neex waaw catholique la waaw. nee da koo neex. waaw ndax mën na waaye nag nee ko yàlla nee na. téere bu tedd bi laa yamassuhu illa almutahharuna. waaw bu leen ko laal mukk ndere da ngeen a laab. dégg wax ndax laab na bu ne lu. yor njàpp. mën a téye alxuraan. dégg nga. d'accord d'accord. jërëjëf jërëjëf. fekkee ci wul ba mënoo koo jënd na. déedéet déedéet ndax amul yoru laab laabul. d'accord amul njàpp. Ah, c'est année bi nag cerise bi gisuñu ko année bi. ah. cerise bi gisuñu ko année bi na cerise bi gisuñu ko année bi. ah Chérif uh-huh. waaw dina ñëw ah. dina ñëw incha allah dafa nekk ci ay yitte waaye dina ñëw ah, ñëpp a ngi koy laaj Chérif Ibrahima a ngi koy nuyu eh, dégg nga waa kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ne sama doom baay bi nag Hadj Mali waaw nee na la jërëjëf jërëjëf Dieng Dieng tabarakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf mais amoon na beneen kim daan mu defoon uh-huh. fii gazwati Xaybara ahdat Zeynab bintu Xaaris Zeynab bintu Xaaris Sina Bakar fii li ma mujjee wax. Mhm. Sina Bakar gis na gis na gis na xar mu ñëw ba ci Seydina Muhammad sujootal ko. sallallahu alayhi Abubakar ne ko mais xar mi baal ñu lay sujootal yonent bi nii bu nit du sujootal nit. Mhm. jël jë teg ko ci suuf nit ki taxaw nga nga sujoot ba suuf Rasulaay neen du ko def. sallallahu alayhi wa sallam laa yambagi li ahadin an yasjuda li ahadin salaamualeykum. salaam. soxna si na maa ngi fi rek. tur bi naka la. man nag damaa bëggoon a leb tur bi. fooy wootee. maa ngi woote depuis France. France bismillah. oustaz Pape Hann laa bëggoon a waxal. waaw man la man yaa ngi wax ak man waa bismillah. oustaz Pape Hann man de France laa nekk mais dama laa sopp trop trop trop trop. jërëjëf jërëjëf. man damaa yoroon sama doom euh, dafa ndaw mu ngi tudd Mouhamed. mais su ma sañoon daal. ci hmm. say loxo laa koy teg nga jàngal ma ko alxuraan. jeex na incha allahu taala. xaw ma ndax dinaa mën a am nag sa numéro. jëlal jëlal jëlal. docteur nee na ma ko laaj rek naa ko jox direct 567 41 82 docteur Massamba Gueye ma ko wax. d'accord dinaa la woo bu émission bi jeexee incha allah 567 41 82 dégg nga. waaw d' accord waaw dinaa la woo incha léegi. waaw d' accord la woo bu émission bi jeexee. incha allah baarakallah baarakallah. jërëjëf an jërëjëf na la fi bàyyi. amiin amiin sama daara nag war ah, nit ñi war ko yëg. Ah, waaw xam nga xam nga maa ngi maa ngi maa ngi bëgg defal maa ngi bëgg tabax daara boo xam ne maa ngi ko tuddee siira. est-ce que xam nga siira nag man sama dund yëpp siira la. waaw daara ji nag. mi ngi mi ngi boo génnee Thiès tuuti rek sama dëkk boobu di Anéen. 5 mhm. kilomètres ak Thiès. waaw maa ngi ko bëgg a tuddee Siira mu nekk daara internat moderne. boo xam ni dañ ciy jàngale alquran xale ba nu mokkal. incha allah jàngale fa français. Mhm. jàng jàngale fa anglais. Mhm. maa ngi seet sama xaritu chinois yi sax ñu ñëw jàngale ci chinois. ahadi waaw waaw loolu daal bëgg naa ko ci daara moderne nga koy def <laughs> daara moderne lay door macha allah jàngale fa tukulóor est-ce que bëgg naa sax jàngale fa séeréer jàngale fa lépp xale yi comprendre adduna waaw daara ji mais Hadj Malick alxuraan ji neex na am na ku ma yónnee message ni ma mhm. numéro Seydil Hadj Malick lañ soxla woon ñoom daal nee nañ soxla lañ sa numéro parce que ñoom itam bëgg nañu nga ñëw jàngal seen jaboot xam nga laasana li tax ma namm mhm. moom laasana mhm. euh, dafay dafay dundal sama bët yi façon dundal goo xam ne waaw da boole ci biir émission bi laa sax indiwaatale ma màkk ak Medina ñu ñu tàqamti ci. suñu waa ji kenn du moom. maa ngi lay wax beneen kéemtaan waxtaan ah waxtu waa ngi euh, kon naa ko bàyyi ba suba. Mhm. wala des na na dix minutes de. waaw waaw des na waa Amérique nag ñoom heure bii duñu am jàmm. déedéet bàyyi nga ni ñoom nelawaguñu. de nelawaguñu te dañ ma yóbbante si yow. alaaj bàcc ñeeg mu baax mi. waaw ak soxna Kiné Maar soxna Kiné Maar ak seen doom Mbóoj. Mbóoj tabaarakallaahu ñoom. xam nga heure bi ñuy tàmbali émission bi fekk na foofu deux heures moo jot du matin. allahu akbar dañuy toog di ko xaar léeg-léeg moo sax yónnee ma ay message ne ma yéen gaaw leen tam te bàyyi tardé bi gis nga gis nga wallahi ndax dañuy toog di ko xaar di ko seetaat ba mu jeex leneen lu ñuy def ñu doog koy def mhm. waaw soxna sëñ bàcc tam yóbbante woon na ma ci yow nee na ma waxal ma Pape daal mhm. ne ko euh, waa ko nañu te ñu ngi koy xaar maa ngi waajal tournée bi waaw maa ngi waajal tournée bi incha allah tabaarakallah tabaarakallah euh, après le 16 juillet mu ngoog incha allah le 16 juillet xam nga nag mooy delloo njukkal Seydina Muhammad sallallahu maa ngi ciy woo mboolem ku bëgg yonent aleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi du ngi lay nuyu. ñu ngi leen di ziar. tur bi naka la. Omar Ndiaye. ci naa Omar Ndiaye fay maa ngi wootee Paris. Paris waa kay Ndiaye Ndiaye jërëjëf sant wa. sant wa. Ah, jërëjëf an ah. kii Dieng kii la Dieng Dieng. Dieng kii Dieng la sant waaw tabarakallah. waa kay waa kay. ñu ngi leen di ziar. ah ñu ngi leen delloo ziar oustaz. jërëjëf jërëjëf. Ah, di woote rek di wax suñu euh, cofeel. jërëjëf ak di nangu rek ni Seydi Hadj malik mhm. liggéeyam dëggu na waxuma njabootam waaye ñi ruus ñi ruus ci njabootam sax fi mu nekk ñi ngi taxaw di wax alhamdulilah te li ñuy wax kenn du ko dindi ñu sant yàlla bu baax sëñ pap jërëjëf jërëjëf ñu ngi ci xadara yi fii ci Paris macha ko ànd ak ñoom El Hadj Ibrahima Dieng ñoom Bachir Sarr ah di ko ànd ak waa axi baaxi Seydi Jamil Ibrahima xam naa loolu wallaay wallaay di leen sant bu baax di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di ci jaar nag di ziar mbokk Sénégal yépp mhm, mhm. li ñu xaw a déranger tuuti ci émission bi rek ñun ñi nga xam ne dañu yorum xëy. Mhm. mooy waxtu bi ñu koy def. yi dëgg la dëgg la dëgg la. xam naa ni kooku seen direction programme waroon na seet nu mu koy doxalee rek. ba ñu mën di ci jot ñun ñuy liggéey ndax euh, wax dëgg yàlla euh, bokk bokk nañ ci te soxla nañ ko. mais léegi léegi dugg na ci YouTube bi léegi. incha allah léegi ñi koy tardé rek nañ koy gar ci youtube bi rek seetaan ko waaye nag li nga wax nañ ko wax kilifa yi bu baax a baax a baax tabarakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ziar ñu ngi nuyu waa Paris yëpp tabarakallah kontaan nañu di nuyu Ibrahima Dieng jërë ngeen jëf ak soxnaam yal na yàlla dëgëral taxawaay yi amin amin yal na yàlla leeral xol yi amin jaay amin li ngeen nekk te muy dëgg yàlla bu leen ci jóge amin amin yal na sax amin jaay te yal na yàlla kattanal amin jaay amin jërë ngeen jëf ñu ngi leen baax jaar kontaan bu baax a baax a baax jërëjëf barakallah jaay ñu ngi nuyu waa Paris ñu ngi nuyu Adja Njooxo Ndaw mhm. soppe Sidina mhm. maa ngi koy nuyu mhm. di nuyu borom këram Alaaji Abdou Pen euh, Moustapha Jamil ma nga moom itam ma ngi koy nuyu ak soxnaam nuyu euh, madame Fadiga Maymouna ak borom këram Ibrahima Dieng ñu ngi waajal seen bis bi nag le 4 novembre incha allahu taala ca Paris waa xadara bu yëpp euh, nuyu Ibrahima ak ay yal na yàlla ka ne France ak ka ne fii yal na yàlla gën leen a barkeel ci daraja yonent bi waa Italie ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu mhm. waa Amérique waa Espagne Europe daal gépp rek gépp soppe Seydina Muhammad yi nga xam ne waa Angleterre ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam yal na yàlla yokk leen dëgëral salaamaaleykum salaamaaleykum aleykum salaam bismillah sëriñ bi na nga def maa ngi nii na nga def alhamdulilah tur bi naka la man tur bi Essa fooy wootee. maa ngi wootee Amérique. Amérique. waaw. sant bi naka la. Atlanta sant bi mbay Mbaye waa kay bismillah. waaw siira laa bëgg a de. waaw yaa ngi siira yaa ngi en direct yaa ngi wax ak Pape Hann. léegi pa Pape Hann. la béykat. ah na nga def Pape Hann. alhamdulilah Mbaye alhamdulilah. xanaa kontaan rek ci sa émission bi. jërëjëf jërëjëf Mbaye di la ñaanal rek yal na nga gudda fan. amiin ñu bokk amiin. yal na yàlla bàyyi suñ kanam bu baax a baax nga ñooy naa ñooy wax affaire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi di la di la nuyu itam ci weeri koor gi. wallahi Mbaye. ak mbooleeg ñu fa nekk yëpp. jërëjëf jërëjëf Mbaye. di leen ñaanal seen émission bi amul morom every time muy Pape Kane dama dee enjoy sa émission bi. ndeysaan saan jërëjëf Mbaye. wallahi. Mhm. so léegi nag maa ngi Amérique nag. waaw. waaye nag Atlanta. yaa ngi Atlanta. waaw maa ngi Atlanta. Mm-hmm. waaw su su ma mënoon a am sa sa nombre tamit dina baax de. waaw jëlal jëlal jëlal jëlal. waaw wax ko ci angale nag. waaw defal seven seven. seven seven. seven one two three four five defal five. five. five defal six. ma def six. defal seven ma def seven one two three defal four ma four defal one ma def one huit duñ koy waxee nine defal nine ma eight eight eight dama jub eight eight eight two eight two eight two waaw yaa ngi ne ma def seven seven five waaw six seven waaw four one waaw etu etu nga ne boobu mooy nomba bi mooy nomba bi waaw waaw waaye jërëjëf waaye la ilaha illallah <laughs> waaye asalaamaaleykum jërëjëf Ndiaye ka ni ci jàng jërëjëf jërëjëf di la ñaanal ci jàmm jërëjëf Ndiaye jërëjëf la Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye waaw Mbaye kontaan ah jërëjëf kontaan naa. maa ngi nuyu waa Atlanta yëpp. asalaamaaleykum. jërëjëf Ndiaye Mbaye Mbaye. mbokk mi noonu soppay Seydina Mouhamed yaa ngoog ñaanati borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla yokku leen dëgëral yal na yàlla sàmm kóllëre gi Euh, am nañ mbégte lool lool lool lool Xaaj Malick mhm. euh, waxtu waa ngi bëgg a dab nag li ma bëggoon a nettali sax mhm. beneen kimtaan boo xam ne ci Seydina Muhammad la xam naa damay bàyyi ba suba insha allahu taala ñu wax ko waaye Mariama Baas ma nga Amérique nee na fab an seen bi daa gàtt mhm. maa ngi nuyu soxna moom itam di nuyu Serigne Sidi si bu Seydi bu Seydi Mouhamadul Habib si mu seex Seydil Xaaji Malick liggéey bu rëy bi nga xam ne ma ngi koy def ci Amérique di ko defal njabootu Seydil Xaaji Malick waaye di ko defal l'islam bi Serigne Sidi nu ngi lay euh, nu ngi lay nuyu nu ngi lay ndokkeel nuyu soxna soxna ma jigéen nuyu yaayu daara soxna Fa Mbaw Babacar Ndaw ñoom ñëpp nuyu nag euh, soxna Adama Ba sama jigéen boobu soppay Seydina Mohamed boobu nga xam ne mooy président de fan sa bi moom itam nu ngi koy ñaanal am na ku ne ci bi ah, ñu jël kii rek kon te tëj ah mm. salaamaaleykum waaw salaam bismillah sëriñ ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay Sira waaw bismillah yaa ngi dugg nga dugg nga tur bi man la Ndaw Mamadou. Mamadou Ndaw. waaw. fooy wootee maa ngi Gabon. yaa Mamadou wa wàññil télé bi wàññil télé bi. waaw papa. bismillah Ndaw bismillah waaw bismillah. allo waaw wàññi naa ko. waaw kay waaw kay lay dégg bismillah. allo. waaw maa ngi bëggee de. waaw jërëjëf jërëjëf Ndaw. dama kontaan si émission bi. alhamdulilah jërëjëf. vraiment seen émission seen wax neex na xam xam nga xamalee nga ma. alhamdulilah alhamdulilah. encore seen émission bi vraiment xam naa yeneen. sallallahu alayhi wa sallam. yàlla yàlla guddal Ndaw ñu yàlla sa guddal sa imi sa émission bi. amin amin daw amin maa ngi doon tante woote sànq ba léegi mënu mu fekkee ba jot. ndeysaan ndeysaan. am na tey la yàlla dogal. dëgg la dëgg la. jël naa même sa numéro léegi dinaa la watiwaat boo soobee yàlla. jërëjëf jërëjëf ndaw kontaan naa nuyu waa Gabon yëpp. waaw maa ngi kontaan si ñëpp si yoon. maa ngi bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf ndaw. jërëjëf nuyu waa Gabon yëpp ñi bëggoon a dugg ñu ngi jéggalu waaye suba insha allahu taala ngeen àndaat ak ñun fii lay doon ci télévision Futurs Médias waxoon nañu leen insha allahu taala lépp lu nu mën jéem ko dem gëstu ci Seydina Muhammad daañu ko def ñëw bégal leen waaye ñaanal suñu kilifa diine yi yal na yàlla yokk seen i leer tas ñu seen barket nuyu njabootu Seyxil Xadim yëpp njabootu maam bu gunta limaamu Seexu Cene Bas waa kër maam Xalifa Ñas waa kër maam Seex al Islam anhum waa jar jëfal ko moom Cheikh Sidil Hadji Malick radiallahu anhu nuyu sama sëriñ sëriñ Maodo si sëriñ Babacar Ibn Alhaji Mansour ñaanal xalifa bi sëriñ Cheikh mu yàgg fi lool te wér sëriñ Abdul Aziz Al Amin nuyu sëriñ Babacar Abdel nga xam ne doorate émission moom itam sëriñ Mansour da baax ma nga Paris moom itam nu ngi koy nuyu baax a baax sëriñ Sidi Ahmed si ma nga Italie euh, sëriñ Pam Makhtar Kébé sëriñ Khalifa euh, si euh, ñaanal leen seen tournée bu mag boobu yal na yàlla doon leen cee defal ndam ci darajey Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Habib si bu sëriñ Mansour sëriñ Fat si Mansour ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér moom itam xajma am naa mbégte ma bàyyi ah, tabaarakallahu Pape fi yëpp nag foofu rek laa naroon jaar mhm. alhamdulilah ndax ñoo bokk sëriñ tabaarakallaa kon di nuyu sëriñ Mansour bu baax Dieng suñu kilifa gu baax woogu ak ak xaaja Penda Dieng ca kër ga hmm. suñu yaay yi ñu desee ca kër ga ak waa kër ga yëpp sama sër yi yëpp maa ngi leen di nuyu Fat Dieng am naa sama ñaari sër yu nekk Tivaouane wax naa la ko duñu rate émission bi dañ koy seetaan bu baax a baax a baax ak sama sër ba nekk ca Kaolack muy Penda am na nag sa benn sa benn mbokk bu la yóbbu bu ma yóbbante nuyoo bu nekk États-Unis na Ami Diagne hmm. ak jëkkëram Xaaji Malick ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu téléspectateurs yëpp nag ba suba ak jàmm incha allahu taala incha allahu taala mm-hmm. fii lay doon ci télévision Futurs Médias du dara du leen umpu lépp lu ñu xam ci Seydina Mouhamed daañu ñëw laay leen ko biir ndax di ko waxtaanee day yokk cofeel nit nag boo ko bëgg boo koo bëgg pour nga bëgg ko di ko gën a bëgg il faut nga xam ko ba noppi siiram ngoo nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala nga xam ne moo ñu ah, sponsorisé soppay Seydina Mouhamed boobu nuyu ko nuyu soxnaam nuyu ay njabootam petit gay yal na yàlla yokku la dëgëral yàlla bàyyi ak sa njaboot yàlla yokku say teranga mm. ci darajay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam laasana maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm Babacar am Euh, Yaasin ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen jàmm ci darajay Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi noonu suba lay doon fii lay doon télévision Futurs Médias bu 6 heures et demie jotee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala